d'abord euh, maa ngi sant yàlla di julli si bi sàng bu tëdd bi di gërëm sénégalais yëpp man nag kaddu yi ma fi yëkkati du ci turu APR du ci turu président de la République sama turu bopp la tant que militant de la en tant que membre du secrétaire exécutif en tant que sénégalais donc euh, di gërëm ñëpp di sant d'abord xalif général des Mourides sëñ Mountaga Bassirou Mbacké ak porte parole ak jëwrin yépp ak yoon wi yëpp ak bépp tarix bi nekk fii ci biir Sénégal wax dëgg yàlla boo ma laajee li xew démb euh, dinaa ci sawar lool di ci tontu ndax li xew démb histoire Sénégal juddu na. bien avant l'indépendance de ce pays loolu ay historiens yi bëri yi mag ñi ma mën a jur ma mën a doon seen set ñu ngi fii ñu du leen déglu ñu koy raconte mais li xew démb mosul xew ci histoire Sénégal kenn ku nekk gis na lii xew démb sëñ Mountakha Bassirou ak xolam bu rafet ak am si biir réew mi réussir loo xam ne ne macha allah président Abdoulaye Wade jóge këram di julli juma immigration mosquée bu gën a mag ci sous région ou bien de l' Afrique de l'Ouest président Macky di président de la République ñëw moom it di julli si ñoom ñëpp ñu fekkente foofu président eh, kii sëñ Mountaga basur dalal leen ak tarix bi yëpp ak porte parole ak jëwriñ mi nga xam ne ne eh, notre ami frère euh, Mbakiwu ñu dalal leen ni ni mu doxee ak ni mbir mi tëddee da ngay xam ne ne yàlla rekk ay buur du kenn donc man jàngat bi ma ci am lu dul gërëm sëñ Mountaga Bassirou Mbacké ma di gërëm président Abdoulaye Wade nekk mag nekk ancien chef d'état ma am esprit de dépassement di gërëm aussi le président de la République Macky Sall gis-gisam ci biir Sénégal je crois que démb leer na askan bi mooy que ne Sénégal la gën a jiital ci loo gis ci àdduna. loolu xam nga ne démb bépp sénégalais koo xam ne bëgg ngaa jàmm Sénégal nga gën a jiital ci sa bopp kontaan nga parce que adduna euh, politique mën nga bañ a bokk ak nit ki ay idées ah divergence d'idées la man lii laa bëgg lii laa xalaat mais bu Sénégal taxawee soxla Sénégal taxaw bëgg. luy njëriñu Sénégal bu taxawee da nga war a fàtte lépp fàtte fépp jiital askanu Sénégal moo waral démb président Macky Sall gis ngeen ko en tant que président de la République actuelle il est à son deuxième mandat boo xam ne ne amagul quatre cinq mois mais sëñ Mountaga bassir woo ko ci loo xam ne ne njëriñu réew mi la woo ci président Ablaye Wade ñoom ñëpp ñu xool ne ne ki leen woo wone na ni ko fi Sénégal toll mais ñoom jël nañu décision woon askan bi fu leen Sénégal toll kii nekkoon ancien chef d'État deux ans deux mandats moom it mu nekk koo xam ne aussi bàyyi la ci président Macky Sall président Macky Sall nekk encore un président de l'al actuel qui en démarrage de son mandat xam ne ne am na ko ba noppi nga xam ne ne buñ ko woowee ci jubo wala dialogue mu fekk si leen ci loolu mooy wane ne moom Sénégal moo ko gën a ñor ci lu mu am ñun nag man mii nga xam ne dama bokk APR bokk ci parti bi ñëpp xam ne jaratul ma koy lam laamee wax dëgg yàlla décision bi mu jël noonu man de adhéré na te da ànd ngaa ànd naa ci dinaa ko ci jàppale dinaa ko ci gunge ndax ñëpp xam man fum mu clignoté rek foofu la mais lii nag rafetlu naa ko aussi xam nga sëñ Mountaga dox na li muy dox ñu ànd mu téye xam ba ci buntu bi marche mosquée Masalikul Jinaan bi si boppam moom Abdoulaye Wade moom moo ne nañu xalli yoon bi mu téye loxo Macky Sall yëkkati ko ba si kaw ñu wàcc dugg oto ensemble dem romb askanu Sénégal démb képp ku amoon douze ans quatorze ans vingt ans trente ans cent ans xam nga am na lii xew dem ci histoire bi réew mi du politique rek parce que ñoom ñaar yëpp fi ñu dajee fi ñu leen jubalee fu ñu leen toogloo waxtaan waxu réew mi foofu du du bërëb bi ñu wax war a du bërëb boo xam ne ne politique la dañoo ñëw di julli ji juma mais ci loolu nag xalif bi ci boppam xalaat ne lii intérêt réew mi la njëriñ réew mi la mu jël ci seen temps waxtaan ak ñoom loo xam ne ne askan bi lay euh, euh, la koy defal réew mi la koy defal julli di la koy defal yaakaar naa sama diine di euh, sama sama sama njàng ci wàllu diine sorewul mais toogloo ay doomu aadama dox ci tànk yi baax ndax ñu nekk benn te noonu njëriñu askan bi li ci nekk ci tiyaaba ñi ma gën a soril ci wàllu téere ñoo ma gën a xam loolu ban ban njëriñ lay am moo tax démb lii xew Sénégal yëpp ñoo kontaan remercier ci xalif bi sëñ Mountaga Bassirou remercier ci ñaari chef d'état remercier ci aussi Sénégal yëpp ndax démb Sénégal yi laa wax bi nekk ci biir Sénégal ak bitim réew Sénégal diaspora tant que Sénégal ñor Sénégal nga bëgg kontaan nga. man man man ci sama turu bopp xam nga waa APR loolu dafay incarner parti bi yëpp parti bi moo war a toog waxtaan mais man sama jëmmu bopp far ba Ngom APR la bokk membre du secrétariat la bokk mais d'accord naa ci adhéré naa ci te lii retrouvaille bi def ma neex ni président appel bu mu def noonu ak Ablaye Wade wax dëgg yàlla kontaan naa ci te neex na ma te adhéré naa ci te ànd naa ci.